jërëjëf mbokk yi asalaamualeykum ñu ngi nuyu ñi fi teew ñëpp jiital ci nuyoo bi suñu mbokk taskati xibaar yi euh, toftal ci suñu àndandoo ci politique yi fi nekk ñëpp mënuma leen lim ndax macha allah bari nañu waaye ñi fi nekk ñëpp xàmmee nañ ñoog ñoom depuis 2017 wala lu ko gën a sori sax. Euh, di nuyu askanu Sénégal ñëpp ñuy déglu ci direct bi moo xam ci internet wala ci rajo wala ci télé ñi ñuy déglu it euh, ñi ñuy déglu ëllëg wala guddi parce que seen liggéey mayu leen ñëw ñu déglu ko léegi ñi ngi nuyu ñëpp di leen gërëm di leen jaajëfal di leen siyaare ci bésu àjjuma bi ñoo woote woon waxtaan gu gàtt gi du doon lu gudd jagleel ko benn poñ bu am a am solo fii réew mi toll muy li ci ëpp jëm ci wàllu kaaraange réew mi kaaraange doomi réew mi muy loo xam ne mi ngi waaj a jéggi dayoo ñu ne nag jot na kenn ku ne jël ci responsabilité bi fi xew-xewu weeru mars amee bim jeexee sénégalais yu bëri wala ma wax sax sénégalais yépp nag ak li ñuy tuddee communauté internationale muy waa bitim réew yépp dañ doon laaj benn laaj bu am solo mooy ndax kii di président Macky dina jàngat jàngat yi mu war a def ci mbir mi waaye ndax dina ci jóge mu am lu mu soppi ciw doxalinam loolu laaj boobu dafa nekkoon ci làmmiñu ñépp ndax dafa am lu mu doxalee woon juróom ñeenti at yu jiitu ñépp xamee ko ci nappaate ci dóoraate ci tëjaate kaso ci saagawaate ndax nag damay wax ni dañuy wax nii naar bu ndaw lu mu dégg rek lu mu wax rek daf ko dégg fenn ñii mu àndal ñépp ñuy wër télévision ak rajo yi di saaga nit ñi di wax lu bon ci nit ñi dama bëgg ñu xam ni Sénégal yëpp xam ni moom moo leen ko yebal maa ngi invité Sénégal yëpp ñu liiraat ko li mu jàngale woon ci ni ñu yore yore nguur bu ko Macky Sall defoon lii du ko dal tey ba mu doon l'homme politique le président le plus impopulaire de tous les temps le plus rejeté par les Sénégalais jël alalu mbooloo séddoo kook yaag say mbokk jaay réew mi jaay doole ku wax nga dóor forcé ne maa fiy toog par force suñ ma tànneeg suñ ma tànn loolu yëpp Thierno Souleymane Baal bind na ko bu ko toppoon lii du ko fi fekk kon waa Fouta Tampi yooyu wane nañ ni ñoom ñooy les dignes héritiers de Thierno Souleymane Baal wan nañ ni ñoom ñooy dëgg dëgg dëgg setu El Hadj Omar Foutiou Tall wan nañ dëgg dëgg ni ñoom ñoom ñooy setu almaami Abdel Kader kan wane nañ ko kon ñun ñëpp di sénégalais waruñu seetaan ñooña ñëpp gis nañ li leen dal dañoo war a am suñu solidarité entière dañu war a am suñu euh, euh, suñu suñu suñu jàppale ci bépp fànn bu ñu leen di jàppale tey bokk na ci li yàq réew mi mooy ñi jàpp ni li fi nekk du dëgg yëpp war a xeex léeg-léeg dañuy tombe ci benn piège mooy kenn ku ne ragal na ñu ne suñ ma gisee ak Masamba dañ naan moom moo ne sama gannaaw moom a ngemb te moo ne ñooñu ñuy sóoraale ñoom ñoom amuñu ci kersa boobu de ña nga ànd ak ñi ñu war a àndal ñëpp ci yàq ak séddoo réew mi ak jaay réew mi man de xamuma waa Fuuta Tampi musuma dajeek ñoom musuma waxtaan ak ñoom waaye naw naa leen félicité naa leen te pare naa pour dajeek ñoom ba cëg mbir kàmm nag du lu may nëbb ngir intérêt réew mi di wax nag ni dañu lancé ñoom dañu confirmer bokk li nga xam ne lancé woon na déjà ci mois de mars bi mooy cette révolution populaire citoyenne républicaine boo xam ne dafa ne dootuñu bàyyi Macky Sall mu nekkee ci ni mu nekkee ci biir réew mi moo tax damay laaj dama naan concept bi ñu war a lancer sax tey mooy senegal tampi du Fuuta tampi li xew Fuuta moo xew senegal oriental moo xew Casamance moo xew euh, euh, Sine moo xew Saalum moo xew Bawol moo xew Ndakaaru Njaay gii na ñépp jëlandoo senegal tampi buñ ko essayé soppi sax naan dañuy def beneen langue tampi bi la ñuy baax moo cay ne boo demee Casamance muy Casamance tampi boo demee Sénégal oriental muy Sénégal oriental tampi soo ñëwee Ndakaaru muy Ndakaaru tampi loolu mooy concept bu ama am solo boo xam ne dañ ko war a lancer ndax fépp a tampi ci réew mi université yi tampi Saloum tampi Bawol tampi Sénégal oriental tampi diaspora sax tampi lan moo baax ci réew mi lan lañ ma mën a ni lii ma nga ma ngay dox ci réew mi ba pare waa ji toog fi ne kenn du ko wax ku wax mu xoggale ku funki di jaay maa maa mën a mer ku bëgg a mën a mer dëgg-dëgg da ngay xëy rek éclater loolu la ñuy xamee ni mën nga mer moo tax ñu leen di apporter suñu solidarité boo xam ne amul fu mu yem di ko apporter it président Bougane ba Dany mi nga xam ne attaqué nañ cortège am démb loolu dama koy wax waa opposition bi yëpp di ko wax sénégalais yëpp gis nga boroom yar mu yor ab yatam ku ne ku sëqat mu dóor ku jàpp ni man mun naa toog sama coin parce que ñëwagul ci man kële lay dóor bu yóbboo nga xam ne su paree ci kooku ci yow la ñëw waratuñoo nangu kenn ci senegal ñu jaay ko doole xoqatal ko wala ñu ne moom Macky Sall am na sañ-sañu def ay activité am ak suñu alalu réew waaye keneen amul sañ-sañu def activité fii ci réew loolu daf jeex na ci senegal li xew Fuuta nag ñun ñëpp ko gisandoo defe naa su dee am na projection sax bu ñu mën a def li xew Fuuta ñun ñëpp ko gisandoo fu ne nag jaar nañ fa pour mu bañ a fës ci senegal waaye vingt unième siècle bii ku foog ni mën ngaa fexe ba verrouiller information parce que am na peut-être ay ay ay moyens yoo xam ne mun nga koo tëjee fenn gis nga tey réseau sociaux yi moo tax mu ciy bëgg a rey boppam réseaux sociaux yi li mu am ci suivi kenn da ko am lu xew Fuuta benn benn amateur yor euh, euh, téléphone am filmer ko dugal ci Facebook balaa ñu naan deux heures de temps deux millions de vues mun na ci am kay tey kenn mënul verrouiller information boo maîtriser lenn tam ba jàpp ni bloqué naa fii bu doon loolu am na ñoo xam ne tey du ñu exister du ñu exister may woo ndawu Sénégal nag nañu continuer ci noonu lu am rek nañ ko jël ba pare nañ ko tasaare ba mu egg fi mu war a yegg yëpp waaye li am Fuuta doy na waar mooy amul benn réew ci àdduna réew bu normal réew bu normal ci àdduna boo xam ne l'institution présidentielle présidence institution la moo tax ñu aar ko aar aar aar ba léeg-léeg su nit waxee sax ñu woo article quatre-vingt institution boobu sécurité mënul nekk ci ay loxo milice privée loolu amul fenn ci àdduna loolu de ñu ngi koy doog a gis nga jël institution bu ne ni présidence de la république daal di jël sécurité am kaaraangeem nga ne léegi damay dem recruter ay nervi yoo xam ne amuñu benn responsabilité vis-à-vis de l'État du Sénégal ne leen nag yow yaay assurer kaaraange président de la République état de su eggee foofu mooy état amatul nërmelu état mënul weesu loolu un président de la République en fonction bu dem recruter benn armée de Banyamulenge taxaw sa kaw oto gis sa milice privée di attaqué ay sénégalais yoo xam ne defuñu benn tort lu dul sa échec politique économique et social lañ ñëw taxaw fàttali la ko ñu leen di dóor sa kanam nga taxaw sa auto di jubilé loolu mi ngi doog a am ci àdduna guléet ah man de mosuma koo gis peut-être ci jamono dictature yu njëkk ya daan na am loolu mbokk yi lu garaaw a garaaw la lu ñu mënut a nangu la waaye ñu war cee am ay jàngat ñu war cee am ay jàngat bi ci njëkk mooy dafa confirmer li ñëpp doon wax bi ñu génnee ci événement mars yi moom dafa woo ay ministre am ñu yooxu dëkk bi yëpp daal di def seen soi-disant nuñ ko tuddee sax mémorandum nee nañu ñun ñooy terroristes yi ñun ñoo fi andi ay forces occultes mooy ay ay ay euh, ay samba yoo xam ne dañ leen a recruter fay leen pour ñu taal réew mi ñu ne ñun ñoo taal réew mi ñun ñoo reylu nit ñi bañ leen tontoo dañ leen ne xale bu am ñaari at sax ci Sénégal xam na ne li ngeen di wax nii waxu ko daanu si saret la ñëpp xam nañ ni yéen yéen a def mbir mi waaye teguñu ci ñetti weer mu mu firndéw tey moom mi jiite mbir mi moo dem ut ay samba booyam ay force occultam di leen yónni ñuy dal ci kaw Sénégalais yi loolu premier jàngat bi la il n'y a qu'un seul Sénégal wala qu'un seul apprenti terroriste mooy Macky sal président de la République ab terrorisme nag bu yor les moyens de l'État kooku musiba la loolu dañu bëgg mu leer àdduna bi yépp nag wër na fa ne ñun ñooy terroristes yi dem na ba daal di def dénonciation États-Unis nga xam ne ñoom dañoo sensible trop ci lépp lu jëm ci waxu terrorisme foog ni fi ñu jaaroon ak Assane Diouf dinañ fa jaar ak Ousmane Tounkara ba ñu demee ci procès bi Ousmane Sonko lañ fa yóbbu dossier yëpp laaj leen journaliste Pape Alé Niang ne woon ci procès ba ñoo ñu ne leen kii du terroriste te duñ ko delloo loolu nag ñaari kan bu ñuy jaar jaamarloo nga ne nga jiiñ ko ca lenn ñu ne la kooku du loola lañ la bëgg a delloo mooy yow moom yaay terroriste bi fu ne wër nañ fi ci àdduna gis nga lii lii ay ay ay ay fax la ñu envoyé seen ambassade yëpp boole kook seen mémorandum ne leen su ngeen demee wax leen nit ñi ne Ousmane Sonko mooy mooy danger senegal moo bëgg a taal réew mi ku bañ senegal la ku bañ àdduna la terroriste la mi ngi nii ay ambassadeur ay ambassade la jóge ñoo ma ko jox waaye lii firndeel na ni. archive yëpp a ngi fi te dañ ko jaarale fi mu war a jaar ba mu egg fi mu war a egg qu'il n'y a qu'un seul apprenti terroriste parce que su ma nee apprenti li ma ci bëgg a leeral mooy mënul terroriser les sénégalais loolu tam dafa war a leer su dee loolu la def ci boppam bu yóbboo mu mu teggi ko bu yàgg parce que dafa xamul jaar-jaaru réew mi dafa xamul lan mooy peuple sénégalais bu ko xamoon dina xam ni mënul terroriser sénégalais yi kon. Euh, loolu mooy premier jàngat bi ñaareel bi mooy ñu interpeller suñu force de défense et de sécurité yi lii am nii dafa wane lu am solo mooy il y un malaise très profond problème bu rëy am na ci tey suñu force de défense sécurité yi rawatina nag diggante gendarmerie ak police bu ngeen defoon seen enquête dëgg dëgg dëgg dëgg benn question bu ngeen war a laaj seen bopp mooy le général jean batistine dafa démissionné moom moo demandé ñu teggi ndombo tànkam wala est-ce que dañ ko changé ci koo xam ne ñaari weer moo ko dese woon pour mu dem à la dafa am ñoo xam ne gor lañu dafa am loo xam ne mënuñu koo nangu ba ki fi jiite woon police bi ndax ci événement mars yi dafa am yu ñu leen santoon yu ñu bëggoon ci ñoom pour ñu dal ci kaw askan wi pour ñu ñu ñu. ñu tiire ci kaw nit ñi ñu lànk ne duñ ko def tey nag soppi nañ leen indi ñoo xam ne ku ci liiroon euh, livre colonel Abdoul Aziz Ndaw di nga xam ne tey Sénégal yëpp ñu ngi ci xottu gerte seen bakkan a ngi ci xottu gerte maa ngi recommandé ñëpp ñu dem liir téere boobu dinañ xam li ma wax te kenn weddeegu ko parce que Macky ci stratégie mooy na am ñoo xam ne bu leen ne woon tiire leen ci ñu tiire ci ful bi ci stratégie mooy na fexe ba def ay recrutement massif jël ay ay nervier yoo xam ne moo leen dugal ci biir police ak ñoo ñu doon ay criminels en puissance pour li nga xam ne les vrais policiers et les vrais gendarmes nga xam ne c'est des républicains duñ ko def ñooñu suñ ñëwee def ko sous couvert du monopole légitime de la violence dans une république loolu mooy stratégie Macky Macky te su ko mënul am ci ay nit ñoo xam ne seen honneur ak li ñu gëmee patrie bi comme seen devise ni mu ko waxee duñ ko du leen ko may da leen fiy jëlee daal di ut ñeneen ñu fi teg ñoo xam ne lu mu leen ne def leen ko ñu def ko ma teel a wax nag sénégalais dégg ñun du duñu waxantu loolu de sénégalais xam nañ ko ci ñun tey loolu mooy stratégie Macky Sall ana suñu force de défense et de sécurité démb gis nañu ay vidéo yoo xam ne fële ci Ourossogui gi pratiquement nervi yi dañ doon xeex ak gendarme yi parce que ñooñu lañ leen sant mooy vous êtes là pour la sécurité du président bu n'êtes pas là pour dem di dóor ay nit yoo xam ne defuñu lu dul sol yére bu xonq ak wax ni président dëkk bi doxul ñu dem engagé ñoo xam ne loolu lañu ñu war a def à leur place le haut commandement de la gendarmerie ba démb nag ba démb ñi ko incarné woon di doon ay républicain joxe ordre boo xam ne arrangé wul Macky Sall ci ni mu bëggee ñu terroriser sénégalais yi loolu dañ ciy félicité la gendarmerie dañ ko ciy félicité waaye nag moo wax ni li ñuy xaar ci gendarmerie ëpp na loolu la xaar ci police ëpp na loolu liy responsabilité police ak gendarmerie mooy Samba booy fu mu munti feeñe même su dee Macky Sall la àndal dañ ko war a jàpp désarmer ko présenter ko à à à la justice c'est ça qu'on attend notre gendarmerie looloo tax ñu leen di fay suñu salaire Macky Sall fayu leen ñun ñoo leen di fay suñu lempo moo leen di fay te nag dañoo prêter serment ni dañuy servir le peuple sénégalais que amul benn sénégalais bu ëpp droit ci kaaraange beneen sénégalais Macky Sall ëppul droit kaaraange. xale bii nekk ci mbedd mi di yelwaan ñoom ñëpp dañu am droit à une sécurité complete te dans une république nag sécurité kenn du ko sous loolu moo indi guerre civile ci réew yëpp sécurité dañu ne il faut ñu organiser ko jël ñoo xam ne dañ leen di former d'abord pour loolu ba pare jox leen teg teg leen ci ay chartes yoo xam ne ci nii la ñuy jàppee nit ci nii la ñuy yóbboo nit alkaati dëgg dëgg dëgg gendarme wala policier dëgg dëgg dëgg du song ay nit di jël ay bant di dóor su dee nit def na infraction dañ koy jàpp attesté ko yóbbu ko garde à vue présenté ko à un procureur ñu xam ni ñuy def donc loolu muy interpellation boo xam ne ñu ngi koy def à nos forces de sécurité et de défense vous êtes des citoyens comme tout le monde jugewu leen ci asamaan si daanu kenn ku ne ci ñun ci sa famille am nga ci frère wala sœur wala oncle wala cousin boo xam ne tey mi ngi sol tenue Sénégal nag ñoo ko bokk nañu rafetal mbir mi su ngeen deful loolu réew mi fi mu jëm du baax loolu nag buñ ko waxee waxuñu ko ci cadre ni dañuy critiquer pour critiquer ñëpp xam nañu professionnalisme suñu force de défense et de sécurité yi àdduna bi yëpp dañ leen fay woo ñu dem di def liggéey bu mucc ayib ñëpp kontaan ci waaye suñ ñëwee ba seen propre réew ñu def leen ay ndongo yoo xam ne dañuy jël ñu amul benn formation teg leen seen gannaaw loolu musiba ngi am waruñu ko nangu nañu sauver le pays pendant qu'il est temps mu wax ni lii lépp nag Macky Sall dafa am lu mu ci jublu mooy li tubaab di wax la stratégie du kaw makisal xam na ni mënatul yor réew mi lem fi jot a nekk it defu fi lu tax sénégalais yi war a ne Macky am na bilan waaye Macky amul élégance su Abdou juuf makisal Sall amul auteur intellectuel u Ablaye Wade sénégalais dama bëgg loolu ñu xam ko. na ñëpp yeewu nag bu ñu yaakaaree ni ni ñu jaaroon ak Wade ak ni ñu jaar ak Diouf la ñuy jaaree ak Macky nax nañ seen bopp yàlla ak yaale Macky Sall parewul pour dem ci ay élections yoo xam ne non seulement waru ko organiser waru koo waru cee bokk waaye ñu jaar ci élection bu jaar yoon le meilleur candidat gagné Sénégal continuer déedéet te it pouvoir à vie la gëm moom. donc sénégalais nañu xam ni nañu war a def ba jëlee fi Macky Sall bokkul ak nañu def ba jëlee fi Wade wala Diouf de ku ko teg sa bopp rek da nax sa bopp su dee nag loolu la bëgg na xam ni Sénégal kenn donn ko ci woy juróom bu dee dëkk ba nga dëkk nga donnul ba su la nit ñi meree taal sa kër boo yaakaar ni Sénégal 197 kilomètres carrés 197 mille kilomètres carrés yow donn nga ko ba yow yaa war a toog dëju ne mel ni statut ne maa fiy toog ad vitam aeternam ndax nga sa bopp loolu mënul am kon star stratégie de chaos boobu nga xam ne ci la nekk lu mu ci jublu mooy su ma mënatul lekk ci cere gi naa fexe ba xajabal ndam gi naa fexe ba bool bi naa ko xajamal bu dee réew mi dafa nar a tàkk sax na tàkk waaye li ci jublu mooy su stratégie kaw amee rek mu justifier li tubaab di wax recours au pouvoir exceptionnel ne réew mi mi ngi en danger ay force occultes am na ay terroristes jóge nañ fële ay milices jóge nañ fële kon man je j'invoque la constitution euh, état d'urgence euh, euh, couvre-feu je prends tous les pouvoirs assemblée nationale sax amatul ci réew mi ku yëngatu nga dóor ku yëngatu nga tëj loolu la jublu ci mbir mi loolu nag dañ ko tul nangul duñ ko ko nangul de parce que ñëpp gis nañ li xew mais tekkiwul it nii nit ñi dañuy banque seen yoxo di ko seetaan muy def lu ko neex moo tax ma wax ni je lance un appel ferme et solennel à tous les Sénégalais ñoom ñi di def li ñuy def nii quelques dizaines lañu quelques dizaines lañu bu leen foog nii ay nit yu bëri lañu ñun ñuy ay milliers voire des millions. na ñëpp organiser wu man wax naa leen ko dinaa leen ko waxaat duma koo xam ne damay toog ñu mbéj ma ci eh, ci lexu lexu càmmoñ ma tàllal lexu ndeyjoor ne dóoraatal wër ci tele yi di saaga di xaste ça passe encore waaye dóor moom dóor a koy faj bañu ma ku ma ne ay day yee na wala dafa violent parce que Sénégal xamul ku riposte sénégalais xamul ku riposte de xamul ku dóor day dóor ñëpp di gis ñëpp a ngi de tekk nag ñëpp laa wax amul exception waaye ku jógoon riposte ñëpp taxaw nag di wax ndax lii xew nii yàlla xam na ni bu doon Pastef moo def tournée ñu attaqué ko sax mu défendre tey nga gis nuñ koy traité les nervis de Ousmane Sonko def nañu lii gaañ nañu kële dóor nañu kii loolu mooy senegal loolu nag su dee ci nii la war a demee ragaluma ku ma ko jiiñ waaye duma ànd ak kenn di la digal demal joxe sa bopp ñu duma la du ànd ak kenn di la digal demal ñu rey la loolu duma ko digal kenn les forces de défense et de sécurité nañu def seen liggéey buñ ko mënut nañu maandu ci mbir mi ngi la waay bu ñu dem di ànd ak ñoom di sot nañ ci maandu ndax buñ ci maandu woon benn fan rek benn fan ñoom ak opposition kese ñoom ak askanu Sénégal kese benn demi matin rek mbir mi jeex kon li may wax sénégalais yi en tout cas ñi ma àndal ak ñi sama sympathisant ak ñi bëgg seen bopp bëgg seen réew kenn ku ne na nga organiser wu nag préparer sa kaaraange bu leen attaqué kenn nag bu leen dóor kenn bu leen saaga kenn waaye ku leen song na ngeen jël seen matuwaay assurer seen sécurité ba mu mat sëkk. ku leen dóor na ngeen jël seen matuwaay na mu ko defee nangeen ko defee noona parce que loolu rek mooy solution bi amul beneen solution Macky Sall su dee moom rek ak ñi mu àndal xam na ni ëppul doole nit ñi fii ci réew mi ils sont une infime minorité sociologique li xew mois de mars waree na ko ñoom ñëpp dañoo demoon dugg ci sous-sol yi nëbatu ji waaye bu dee yaakaar na ni ci lii la mun a jaare pour terroriser les Sénégalais ndax na boppam man Ousmane Sonko maa assumé sama responsabilité woote ne na ñëpp organiser wu ci suuf ba ci kaw ba kuñ fi dóor na nga fayu parce que xamante na ñag ci réew mi la ñu dëkk te je l'assume devant tout le peuple sénégalais ma wax sénégalais yi nag ni ñaari at yi ñu jëm dina doon at yu méttee métti su ma sañoon en tant que sénégalais. su ma sañoon ak ak cofeel gi ma am ci réew mi moo wax leen luy daal seen xel ne leen mbir mi dina baax mbir mi dina dox waaye malheureusement demewut noonu waa ji ñaari at yi di ñëw yépp politique la koy def talatul luy gérer luy gérer réew mi talatu ko da ko mënul sax ndax amul capacité yi amul compétence bi amul gis-gis bi waaye comme jàpp na ni dafa war a toogaat ci réew mi ala kulli xaal na ñëpp xam ni ñaari at yi di ñëw politique lay xëyee moom lay gonto moom lay fanaane su ma nee politique nag mooy yii muy wër di wax yoo xam ne dara amu ci lim fi diggee woon anam lan la fi def su doon def na loola du dem tey Fuuta fi mu ne woon titre foncier la mu demee nii te feneen fu mu dem ci senegal noonu lay demee bu doon bi muy wër Sénégal yëpp. di def doxantoom yooyu yàq suñu xaalis suñu carburant naan day def conseil des ministres décentralisé milliards yi mu annoncé woon yëpp bu doon def na ko ci ci gox yooyu tey du dem ci biir réew mi ñu koy yooxoo lajj na ba fu lajj na yem koo xam ne nag juróom-ñetti at nga tële ku yaakaar ni ci ñeenti eh, ci ñetti ñaari at yi di ñëw mën na fi def lu tax ñu ne gongo da ngay nax sa bopp waaye comme moom ni mu tëlee ci ni ñuy defaree réew noonu la Euh, noonu la taqee ci lépp lu jëm ci politique nañu xam ni ñaari at yi di ñëw sénégalais bu jàpp ni dina yomb d'abord du yomb ci contexte politique bi parce que bu doon am na ay régulateurs yoo xam ne jox na leen cër rus na leen suñu waxee mu déglu leen kon mbir mi dina yomb mais loolu amul ci réew mi lii yëpp lii yëpp ñun ñu bëri dañuy interpeller nañu yéen a def erreur parce que bañ ko jekkoo ci mars nga xam ne bu ngeen bàyyi woon gone yi heure bi nekkatul président waroo leen woote ne teggi leen seen tànk ma tontu leen ne leen erreur amu ci réew boo ci nekkee séq kook ay pàcc pàcc bu nekk di ay kilifa ku nekk da nga koy jox cër te looloo taxoon ñu def li ñu def te rëccuwuñ ci dara waaye bu ñu doxee ba gis ni nag mbir mi benn boor la féete ñii mun nañu joxe cër ne d'accord nañu ñële ne ñun fu ñu yëkkati fu ñu jóg yëkkati suñu yat dóore yaram benn la kon am nañu suñu fulla gu mat sëkk ba jël suñu matuwaay boobu ku ñu dóor ñu fajante kook yow kon may wax sénégalais yi ni kenn ku ne boo wéeteeg sa bopp laajal sa bopp lu simple ndax réew mi soppiku na ndax sa dund soppiku na tey la dund gi gën a cher lan la gaz di jar lan la ceeb di jar lan la courant di jar lan la ndox di jar lan la pombiteer di jar lan la soble di jar tey la waalu tey la Sénégal gën a métti njàng mi est-ce que dox na professeur yow mi nekk université wax naa léegi université tampi njàng mi ci suuf est-ce que dox na paj mi est-ce que dox na mbay mi est-ce que dox na Sénégal foo laal tey la gën a métti nga boole koog nag bëgg a jiital coxor xeeb nit ñi ak foog ni yaa moom réew mi ku yëngatu nga dóor loolu li tubaab naan cocktail la boo xam ne daje na boo xam ne man de awma yaakaar ci fa ñu jëm na Sénégalais bu nekk nag jël matuwaayam man maa ko wax ndax réew mi ñoo ko bokk suñu toogee nag di sàggan di seetaan ba lii nga xam ne moom mu ngi koy rumbanaat mu am fi kenn ku ne dina nga toog wéet sa ruq di jooy te doo gis ko lay ku lay saafaral sa problème sa jàngoro kon tey la ñu mën a jël suñu matuwaay parce que Sénégal nous som 16 millions de Sénégalais ñoom ñooñu di di përti përti di def li ñuy def man gëm naa ni matuñu sax 500000 Sénégalais kon nañu jël suñu matuwaay lii ma wax nag ci jafe-jafe dund gi moo tax fi may daaneele diwoo woo Sénégalais yépp nag ci benn rassemblement exceptionnel boo xam ne mercredi prochain incha allah muy le juin. parce que li taxoon 23 juin am ba ñu célébrer ko yi yëpp ci la woon comme nag dara soppikul boobu léegi ñuy laaj ñuy woo ñëpp nag ci rassemblement bi nga xam ne opposition ak société civile ñu ngi koy organiser pour ñu delloo buum ci mbooy mbooy ga pour ñu wax sénégalais ni malheureusement amoon nañu yaakaar waaye erreur bi gën a rëy bi ñu mës def Sénégal c'est d'avoir élu un homme qui s'appelle Macky Sall un jour de mars 2012 que la taxoon ñu élire ko yëpp muy les promesses du de de de du 23 juin il les a trahis loolu moo tax ñuy woote ci ndaje boobu su loolu weesoo nag dinañu dugg ci réew mi diggante 23 ak 24 ak 25 commencé suñu tournée nationale ñu tuddee ko nemmeeku tour ñoo ngi ñuy yéegal nag ni ñoom ña ngay waajal pour fu ñu dem ñu yónni seen i nervi ñu ne dañuy attaqué convoi Ousmane Sonko bu ko defee ñu gaawantu ne ñun ñoo indi trouble à l'ordre public ñëw jàpp ay élément sama sécurité ak ak yeneen ñoo ngi xaar ba ñu toll foofu parce que Macky Sall moomul réew mi te du ko musa moom ñu ngi leen di gërëm di leen sant di fas yéene faram-fàcce li ñu wax ni ci lu gaaw ci kàllaama nasaraan cher compatriotes au lendemain des événements des mois de février et mars 2021, nombreux d'entre vous se posaient la question, pour ne pas dire tous, s'étaient posé la question de savoir si Macky Sall allait tirer les enseignements de ce qui s'est passé et qui n'est que le de sa gestion calamiteuse du pouvoir sur l'instrumentalisation de tous les moyens de puissance publique pour brimer de l'opposant, pour euh, euh, euh, emprisonner de l'opposant, pour persécuter de l'opposant, pour insulter de l'opposant, jeter de l'opprobre sur l'opposant. C'est la résultant de tous ces comportements qui ont été rejetés par les Sénégalais qui a produit les événements de mars 2021. Tout le monde et même la communauté internationale s'était posé la question. Et tout le monde souhaitait, moi en premier, parce que nous sommes tous Sénégalais et nous aimons ce pays. Nous voulons que ce pays continue à se bâtir sur un socle de paix et de sérénité. Et donc nous tous, nous voulions et nous appelions cela de tous nos voeux, en espérant que Macky Sall allait savoir raison garder, allait savoir tirer toutes les conséquences du message fort que le peuple venait mais peine perdue. Avec tout ce qui se passe actuellement dans le pays, je crois que chacun et chacune des Sénégalais a une réponse précise, précise et pertinente par rapport à, à ce questionnement-là. Nous avons tous espéré, mais nous avons espéré en oubliant que Macky Sall n'a pas la grandeur intellectuelle d'un Ablaye mais Macky Sall n'a pas l'élégance républicaine d'un Abdou Diouf. Et ça nous interpelle tous ça doit nous tous à comprendre que ce qui fera partir Macky Sall de ce pays est totalement différent de ce qui nous a, de ce qui nous a amené à faire partir ses prédécesseurs à la tête de ce pays. Il faut que tous les Sénégalais soient psychologiquement blindés, que nous allons vers d'âpres combats pour mettre un terme à ce régime de Macky Sall, qui est un régime incompétent, incapable, dont le bilan est strictement négatif et j'y reviendrai. Vous me permettrez de rendre hommage à nos parents du Fouta. Vous me permettez de à nos parents Fouta, qui se trouvent être mes grands-parents personnellement. J'ai tendance à dire que le Sénégal est un et indivisible. Nous sommes un grand peuple. Au-delà des ethnies, au-delà des régions, au-delà euh, des religions. Nous sommes un très grand peuple. Et c'est cela qui a fondé le socle de, du brassage qui est multimillénaire. Nous n'avons pas, nous n'avons jamais connu ces clivages. Il peut y avoir des discours par-ci, par-là. C'est tout à fait normal parce que chaque entité est une entité remarquable et a sa spécificité. Dieu lui-même nous apprend que je vous ai créé en communauté. S'il voulait, il, il allait nous faire de nous une seule communauté. Tout le monde serait de la même ethnie, de la même race, de la même religion, etc. Mais il a dit, je fais de vous une seule communauté pour que vous vous enrichissiez mutuellement. C'est ça l'objectif. C'est pour que culturellement, culturellement, sociologiquement, géographiquement, que nous puissions nous enrichir. Le Foutanké qui quitte Fouta pour aller en Casamance, il découvre une nouvelle culture, une nouvelle façon de manger, une nouvelle façon de danser, une nouvelle façon de cuisiner, etc. etc. Vice versa, le Casamance qui quitte pour aller au Sine, il, il découvre autre chose. Et c'est pourquoi il y a le tourisme. Pourquoi les gens prennent leur argent pour voyager, pour aller voir d'autres cultures C'est ça qui justifie que Dieu ne nous ait pas créés en une seule communauté. Mais on n'est pas meilleur que les autres parce qu'on est de telle ethnie, parce qu'on est de telle région. C'est pas ça. Le meilleur d'entre nous, seul Dieu et c'est par rapport à sa relation avec Dieu, mais sa relation avec les êtres humains. Mais c'est pas parce qu'on est de telle ethnie ou de telle religion ou de tel truc que forcément on est meilleur que tout le monde. Et c'est pourquoi les discours qu'on a entendus depuis l'avènement de Macky Sall dans ce pays sont des discours de haine, des discours de division. Ces discours-là, c'est ces discours-là que, que tout le Fouta vient de démonter. On a entendu ici que les Foutanké font du Nettuku Bandoum. On a entendu qu'ils suivent aveuglément parce que du simple fait que Macky Sall serait Alpoulard. Moi, je suis arrivé deuxième aux élections présidentielles au Fouta. Beaucoup de Foutanké ont voté pour moi. Dans certaines zones, vers le Podor, j'ai atteint 15% de score. Donc, qu'on dise que euh, c'est du Nettuku Bandoum, j'ai toujours dit attendez, relativisons. Chacun, il est normal que chacun, là où tu habites, que tu es en tout cas un pourcentage de vote affectif, à commencer par ta propre maison. Mais cela ne veut pas dire que les gens suivent aveuglément. Et ce qui s'est passé aujourd'hui l'a confirmé et je veux ici et maintenant dire à tous les Sénégalais que nous devons apporter un soutien moral indéfectible, un soutien matériel et financier, même si nous le pouvons, à ces braves fils et ces braves filles du Fouta regroupés dans cette organisation qui s'appelle Fouta Tampi, que je n'ai jamais rencontré, que je ne connais pas et que je souhaiterais rencontrer de manière tout à fait transparente et ouverte. Parce que dans ce pays-là, il faut qu'on dépasse une chose. La, la stratégie du pouvoir, c'est que dès que les gens qui, ont, qui mènent les mêmes combats se, se parlent entre eux, on dit oui, oui, c'est des politiciens déguisés, c'est tel qui est derrière, c'est tel qui les instrumentalise, alors que eux, ils ne pour se retrouver pour détruire ce pays. Donc il faut que cela cesse et faut que tous les citoyens et toutes les citoyennes, tous les patriotes de ce pays, tous ceux qui aiment ce pays, il faut qu'ils se retrouvent autour de l'essentiel parce que nous le devons à nos petits-enfants, nous le devons à nos enfants, nous le devons à nous-mêmes. On ne peut pas continuer à laisser détruire ce pays comme c'est en train d'être fait. Et c'est pourquoi je rends hommage à, à, ces, à ces dignes fils du Fouta et du Sénégal qui sont les dignes héritiers de Thierno Souleymane Baal qui sont les dignes héritiers de Almami Abdelkader Khan, qui sont les dignes héritiers de Omar Fouti Outal. Je dis, je renvoie tous les Sénégalais à, aux enseignements de Tcherno Souleyman Bal. Si Macky Sall, qui disait que le Pouta est son titre foncier, si c'était inspiré des enseignements de Tcherno Souleyman Bal, il ne serait pas dans la posture d'impopularité qui est la, la sienne aujourd'hui. Parce qu'il a enseigné comment on doit gérer le pouvoir. il a dit on ne n'hérite pas du pouvoir on ne choisit pas parce que c'est le fils de X ou Y choisissez le meilleur d'entre vous celui qui dirige ne doit pas s'enrichir si vous voyez celui qui dirige en train de s'enrichir répudiez-le il ne doit pas enrichir sa famille au détriment du peuple pendant que le peuple souffre et énormément d'autres enseignements qui sont contenus dans le manifeste de Thierno Souleymane Baal un vrai Foutanké devrait s'inspirer de ces enseignements-là pour relever le niveau et pour rendre hommage au Fouta. C'est pourquoi je rends hommage aux, à ces dignes fils et ces dignes filles du Fouta. J'apporte également ma solidarité à, au président Bougan Gaydani dont le cortège a été attaqué hier. Et je lance encore un appel à toutes les forces vives de la nation. Vous savez, l'anecdote du troupeau. Le troupeau. Pour que la hyène puisse euh, euh décimer le troupeau, il vient créer d'abord la zizanie pour dire à la vache blanche que la vache noire est contre vous, etc. Il faut que vous vous éloignez d'elle. De, de, Et c'est quand cette vache s'éloigne que le, la hyène peut attaquer la vache solitaire. Euh, en faire son repas pour après tranquillement, quand il aura digéré, s'attaquer à l'autre vache. Macky n'est fort que parce que son opposition, quelquefois, le laisse faire. Et nous devons tous comprendre que s'il s'attaque à l'un d'entre nous, il s'est attaqué à tous. Parce que quand il aura fini de régler son compte à celui qui est la cible du jour ou du mois, il va prendre un recul pour s'attaquer immédiatement au suivant. et éliminer progressivement les uns après les autres. Et c'est pourquoi je dis, indépendamment de nos choix personnels, indépendamment des, des, des petites divergences qui peuvent exister, nous n'avons pas tous le même discours politique, nous n'avons pas tous le même projet politique, mais au-delà de tout ça, nous devons savoir que nous n'avons qu'un seul adversaire, il s'appelle Macky Et à chaque fois qu'il s'attaquera à l'un d'entre nous, tous les autres comme un mois de mars, le peuple avec parce que seul le peuple peut nous permettre d'arriver à bout des pratiques de Macky Sall. Ce qui se passe au Fouta est une honte pour ce pays. Vous avez vu les images qui ont été, euh, que vous avez tous vues, particulièrement à travers les réseaux sociaux. Ces images sont une honte pour le Sénégal. Prendre des nervis pour escorter un président de la République, c'est une honte pour le Sénégal. C'est l'illustration la plus parfaite de la faillite de nos institutions. Où est la police de ce pays? Où est la gendarmerie de ce pays? Où est même l'armée nationale de ce pays? Que nous finançons à coups de milliards. Allez regarder le, le budget de la police, de la gendarmerie, de l'armée au Sénégal. Et on dit que tous ces gens-là ne peuvent pas protéger l'institution présidentielle, parce que la personne de Macky Sall ne nous intéresse pas, mais l'institution qu'il incarne. Mais il faut aller recruter des nervis sorti de nulle part pour sécuriser un président de la République. C'est une honte. Ça n'existe nulle part, dans aucune démocratie. C'est l'illustration la plus parfaite de la faillite de l'État du Sénégal et de la faillite de Macky Sall. Mais au-delà, ça atteste d'une chose. Il y a un profond malaise au sein de nos forces de défense et de sécurité. Ce qui s'est passé au mois de mars l'a déjà révélé. il y a un profond malaise. Et ce malaise-là, ça s'illustre par le fait que les forces de défense et de sécurité, tant qu'elles étaient commandées par des hommes de valeur, et je demanderai à la presse de faire des investigations pour savoir est-ce que le, le chef de la gendarmerie sortant, est-ce qu'il a demandé lui-même à être déchargé parce qu'il ne peut, son, son honneur et son amour pour la patrie, n'oubliez pas que la gendarmerie, c'est honneur et patrie, ne lui permet pas d'accepter qu'on transforme ses troupes en supplétifs de nervis et de gaillards recrutés dans le temps. Est-ce que ce serait pas ça qui, qui c'est pas ça qui serait à l'origine de, euh, de, de euh, du fait qu'il est demandé à être déchargé de ses fonctions? Ça crée un malaise. Si vous observez bien les images, la police et la gendarmerie se, se limitent à jalonner et à gérer la sécurité du président. Leur rôle, c'est pas d'aller interdire à des citoyens de manifester devant un président pour lui dire que vous avez trahi vos engagements. C'est pas ça le rôle des forces de défense et de sécurité. Et ma conviction, c'est que les gradés dignes, patriotes et qui tiennent à leur honneur ont dit à Macky Sall que nous n'accepterons pas de jouer ce rôle-là. C'est pourquoi il est allé parce qu'il sait que partout où il passera sur le territoire national, il sera hué et il mérite ses huées. Parce qu'il a trahi le peuple sénégalais. Il n'a pas respecté ses engagements. Alors, ça c'est le premier constat, un profond malaise et qui vient de se confirmer hier ou se, ou, ou se confirmer à nouveau. Parce que durant les mois de mars, le, les mois de mars et février, les forces de défense et de sécurité avaient refusé d'aller à fond dans ce qu'on voulait, c'est-à-dire qu'ils ouvrent, qu'ils aveuglément le feu sur les populations. Et elles ont refusé de le faire. C'est pourquoi il a fallu rapidement changer le chef de la police. C'est pourquoi il faut, il a fallu hier également changer le chef de la gendarmerie. Mais si vous voulez savoir ce qui se prépare, allez lire l'excellent ouvrage du colonel Abdoul Aziz Ndaw. Allez lire cet ouvrage-là. Vous verrez à qui maintenant on confie notre sécurité. Parce que Macky Sall, je le dis tout de suite et maintenant, n'envisage absolument pas de quitter le pouvoir. Absolument pas. Et je vais y revenir. Tout ceci, ce qui est en train de passer, ce est en train de se passer, cet usage, ce recours à des bandits, à des vaillous pour traquer les Sénégalais et taper sur les Sénégalais, a amené beaucoup de Sénégalais à nous interpeller, à nous dire nous avons raison sur vous. Parce qu'au mois de mars, quand il a été à la porte du peuple, quand il, il était facile de s'en débarrasser définitivement, c'est vous-même qui avez appelé au calme. Je rétorque à tous ces gens-là que nous n'avons aucun regret par rapport à ce qui s'est passé. Parce que dans un pays, il y a des segments. Et il faut savoir composer avec tous ces segments. Et parmi ces segments-là, il y a des segments importants qui avaient envoyé des délégations pour nous demander de d'appeler à l'apaisement et que eux-mêmes allaient prendre le dossier en main. Nous l'avons fait, nous n'avons pas à regretter. Maintenant qu'on se rend compte que notre vis-à-vis n'en a cure, qu'il n'a aucun respect pour ces institutions, nous prendrons nos responsabilités pour lui faire face. Parce qu'il n'est absolument pas question que nous prêtions le flanc. Il n'est absolument pas question que nous laissions, nous livrions nos militants et nous-mêmes que nous livrions à la brutalité gratuite de Macky Sall et de ses nervis. Parce que, et c'est pourquoi je lance un appel aux forces de défense et de sécurité. Nous connaissons votre professionnalisme. Vous faites la fierté du Sénégal partout dans le monde. Et ici chez nous, aujourd'hui vous êtes réduits à être des compléments d'effectifs de nervis. ce qu'on vous demande, à défaut de pouvoir faire votre travail. Parce que ce qu'on attend de vous, ce n'est pas seulement de refuser de jouer euh, euh, euh, le rôle que Macky Sall veut vous faire jouer. Mais ce qu'on attend de vous, c'est que vous arrêtiez ces nervis. Le monopole de la violence légitime dans une république, ça n'appartient qu'aux forces régulières. Donc vous voyez à côté de vous des gens armés de gourdins, armés de coupe-coupe, armés probablement même d'armes à feu. Et vous les laissez faire, de vous que vous à défaut, ne soyez pas à leur côté pour brimer le peuple sénégalais. Et nous, nous prendrons nos responsabilités pour faire face à, à Macky Sall. Parce que la stratégie de Macky Sall, c'est ce qu'on appelle la stratégie du chaos. Il se sait sociologiquement et politiquement minoritaire dans ce pays. Extrêmement minoritaire. Qu'est-ce qu'il fait Il essaie de créer une situation d'insurrection pour après justifier de, du recours à, aux pouvoirs exceptionnels que la Constitution a prévu pour des situations où le Sénégal serait attaqué de l'extérieur ou de l'intérieur. Décréter le couvre-feu, l'état d'urgence, euh, euh, prendre les pouvoirs de l'Assemblée nationale, emprisonner à tour de bras, brimer, faire ce qu'il veut. Nous savons que c'est ça sa stratégie. Et nous interpellons le peuple sénégalais d'abord. Mais nous interpellons la communauté internationale Nous allons envoyer tous ces éléments à toutes les représentations diplomatiques. Nous interpellons cette communauté internationale parce que Macky Sall est allé voir toutes les ambassades pour leur dire Sonko c'est le diable incarné, il est violent, il veut brûler le pays, il n'aime pas les étrangers. J'ai ici des fax qui ont été envoyés à toutes les ambassades pour me diaboliser. Toutes les ambassades du Sénégal pour leur dire allez dire voilà les éléments comme ça qu'ils l'ont dit. Faisant suite à mon tac, etc., etc. Euh, qu'on conçue souvent approche factuelle, etc., élément de langage. On dit, dites que Sonko, c'est lui qui a déclenché tout, c'est lui qui veut brûler le pays, etc. Je dis à ces représentations diplomatiques que les faits sont têtus. Le MDD a fait son mémorandum et a donné à toutes les représentations, avec les, les vidéos et tout, de ce qui s'est passé au mois de mars. Des gens ont saisi la CPI. Je crois que le, la procureure spéciale l'a dit ici à Dakar. Nous allons continuer dans cette démarche. Et tous ces nouveaux éléments seront, seront transmis à qui de droit. Mais je veux les interpeller pour le dire que le seul apprenti terroriste dans ce pays, celui qui a des forces occultes, parce que les forces régulières refusent de tomber dans ces combines, il s'appelle Macky Sall et il faut que la communauté internationale arrête de le suivre dans ce qu'il est en train de faire. Et Jean, je lance un appel au peuple sénégalais, à commencer par nos propres militants, aux sympathisants, à tous les Sénégalais, les patriotes, organisez-vous et organisez votre défense. Moi, je ne serai jamais quelqu'un qui va vous dire allez vous livrer, allez vous faire tabasser, allez vous faire blesser. Ces gens qui vous attaquent aujourd'hui sont une petite minorité. Vous êtes des milliers, voire des millions. C'est pourquoi je réitère mon appel aux forces de défense. Soit vous arrêtez ça, soit vous restez et vous laissez les deux partis régler leurs problèmes. On verra qui est majoritaire dans ce pays. J'en appelle à la jeunesse de ce pays. Organisez-vous, n'attaquez personne. Ne tirez sur personne. Ne soyez pas les premiers à attaquer. N'insultez pas. Mais si on vous attaque, ripostez vigoureusement. Répliquez vigoureusement. À la hauteur de l'attaque que vous avez suivie. J'assume cette position parce que je ne suis pas de ces hommes politiques qui ont peur d'être indexés, on va dire, oui, il est belliqueux, il est ceci. Mais je ne serai jamais un homme tout court qui acceptera de, de, de tendre la joue gauche après une gifle sur la joue droite. Je ne serai jamais cet homme-là. Dieu ne nous a pas recommandé cela. Personne ne nous a recommandé cela. Je ne l'accepterai pas. Macky Sall n'a pas plus de droits que moi dans ce pays. Et je réitère mon appel, organisez-vous partout pour faire face aux nervis de Macky Sall. Ce pas une insurrection Vous n'en avez pas contre les institutions officielles de ce pays. Vous n'en avez pas contre les forces de défense et de sécurité. Vous en avez contre des bandits présidentiels. C'est du banditisme présidentiel dans ce pays. Organisez-vous pour faire face à, à, à, à ces, ces nervis. Dès que vous l'aurez fait, vous, verrez bien comment, ce qui va se passer. Parce que Macky Sall ne connaît que ce langage. Mais derrière tout ça, je peux vous garantir que vous avez un peureux qui se tout ça. Dès que vous, on aura les ripostes appropriées, vous verrez la réaction de Macky Sall. Et j'appelle tous les Sénégalais à s'organiser et je le réitère une fois de plus. J'aurais aimé rassurer tout le peuple sénégalais pour leur dire que les choses vont aller mieux. Nous aimons trop ce pays. Nous sommes prêts à nous sacrifier pour ce pays. une meilleure vie pour les Sénégalais, un meilleur sort. Nous souhaitons une amélioration des conditions de chacun et de chacune d'entre les Sénégalais, nous y compris. Mais je suis désolé, je suis au regret de vous dire que je n'ai aucun espoir sur les deux années à venir. Pour la simple raison que vous avez un président politicien qui est aussi politicien qu'il est piètre homme d'État, aussi politicien qui est, qui de de développer ce pays, d'améliorer votre sort, de faire des résultats économiques et sociaux. Et ce président politicien passera les deux, deux prochaines années à faire de la politique, rien que de la politique, pendant que le pays sombre, pendant que le pays va très mal, pendant que dans tous les segments, c'est la catastrophe. Aujourd'hui, s'il était un président conscient, il serait là à voir comment régler les problèmes des Sénégalais, au lieu de, de prendre des milliards pour aller faire son lambar-lambari. Ce sera ça les deux prochaines années. Mais si ça se à ça, encore. Mais je suis sceptique parce qu'on a un président qui a décidé mordicus qu'il va rempiler en 2024, qui n'a aucune intention de passer le pouvoir, aucune, et que c'est en nommant à des postes stratégiques des gens qui vont lui obéir au, au droit en recrutant et en infiltrant les forces de défense et de sécurité par ces nervis, c'est en distribuant le peu d'argent qui reste dans ce pays. Voilà un président qui va s'endetter pour venir faire de la politique. Je ne dis même pas s'endetter pour payer des salaires ou s'endetter pour payer des dettes, parce que c'était comme ça avant. Il va se surendetter pour faire de la politique, pour déverser des milliards un peu partout, alors que les jeunes ne trouvent pas d'emploi. L'université est à terre, l'école publique est à terre, on n'en parle les jeunes n'ont pas d'emploi. Et je veux dire ici à tous les Sénégalais, tout ce qu'il est en train de vous euh, promettre comme ça, c'est du vent, c'est du pipeau, c'est de la poudre aux yeux. Ce qu'il n'a pas pu faire pendant 9 ans, il ne le fera pas ces 2 ans. Cet homme est incapable de diriger le Sénégal. Et la plus grosse erreur que les Sénégalais ont pu commettre, c'est d'avoir élu un homme qui s'appelle Macky Sall un certain mars 2012. Malheureusement, nous risquons de payer très cher cette erreur. très cher. Parce que pour le faire partir d'ici, il faut que chacun de nous se blinde psychologiquement et comprenne qu'il va falloir croiser le fer pour faire partir Macky. Il n'aura pas la même grandeur que Abdou Diouf et Abdoulaye Wade. Je tiens à le dire et à le redire. Et donc, chacun d'entre nous, quand il sera seul dans son coin, il n'a qu'à se poser une question très simple. Qu'est-ce qui a changé positivement dans ce pays de 2012 à maintenant Est-ce que les Sénégalais Est-ce que le coût de la vie a baissé? L'eau, l'électricité, le riz, l'huile, euh, euh le le le le euh, l'oignon, euh, la, la pomme de terre, tout tout ce dont on a besoin pour vivre de manière basique. Ça, c'est c'est les c'est les besoins primaires de l'être humain. Est-ce que ça a baissé dans ce pays? Chacun n'a qu'à se poser cette question élémentaire. Est-ce que la malgouvernance a reculé dans ce pays? Il a vendu les océans. nos pêcheurs ne peuvent plus avoir accès à, à, aux ressources euh, halieutiques. Il est en train de vendre la terre à des investisseurs soi-disant étrangers. Il a vendu le pétrole, le gaz, le zircon. Même l'air que nous respirons, il va bientôt le vendre. Rien n'échappe à cette boulimie. Qu'est-ce qui marche dans ce pays Qu'on me dise, je veux des exemples très concrets. Chacun des Sénégalais n'a qu'à se poser cette question élémentaire. Et c'est cet homme-là qui veut aujourd'hui encore rester dans le pays. pensant qu'il l'a hérité de ses parents peut-être. Mais même son propre village, il sait qu'il n'en a pas hérité. Parce que quand ils ne sont pas contents, ils brûlent sa maison. A le territoire sénégalais. millions de Sénégalais, 197 000 il pense qu'il en a hérité. Et je veux ici qu'on se prépare tous. Nous sommes un peuple où les gens aiment euh, les choses, voyez, etc. On a en face de nous un homme qui ne connaît pas ça. Et il faut que psychologiquement, mais matériellement, que nous donnons, donnions les moyens de faire face à Macky Sall. D'où mon appel à une mobilisation exceptionnelle. Parce que rien ne va, nous sommes tous d'accord. On a reculé à tout point de vue. Mais le pire, c'est que la denrée la plus précieuse pour le Sénégal, la matière première qui vaut plus que l'or, qui plus que le pétrole, le diamant, le zircon, qui vaut plus que les ressources halieutiques, c'est-à-dire la paix sociale, la cohésion entre tous les Sénégalais, de toute ethnie, de toute région, de toute religion, de toute tariqa, depuis neuf ans que Macky Sall est là, cette cohésion est compromise. Un discours de haine, un discours de division. Et c'est pourquoi je félicite à nouveau nos parents du Fouta, parce qu'ils ont refusé cette manipulation-là. Ils se sont remis ils, ils ont remis le Fouta au cœur du Sénégal parce que le Fouta, c'est l'histoire du Sénégal. Je les félicite à nouveau. C'est pour toutes ces raisons-là que je lance un appel, un appel vibrant, un appel fort à tous les Sénégalais, à toutes les Sénégalaises, sans distinction, à se mobiliser massivement pour qu'ensemble, le 23 juin 2021, 11 ans, 10 ans, mois pour mois, après le 23 juin 2020, 2011 pour qu'ensemble nous réunissions, nous, ré, nous nous réunissions pour dire à tout le monde que Macky Sall a trahi toutes les promesses du 23 juin. On ne se réunit pas pour parler de, du 23 juin de 2011. Ça, c'est une page tournée. Mais on est là pour apprécier. Parce que les Sénégalais avaient beaucoup d'espoir à partir de ce qui s'est passé le 23 juin et qui a conduit à l'alternance de, de 2012. Tous ces espoirs et toutes ces promesses ont été déçus, trahis par Macky et son groupe. Et c'est pourquoi tous les Sénégalais doivent sortir comme un, massivement, pour qu'on dise, qu'on qu qu dénonce cette trahison-là et qu'on qu montre à Macky Sall que le peuple ne veut pas lui. Le peuple ne veut plus de lui, ni de son équipe, ni de et il est temps qu'il prépare ses valises pour partir en 2024. Je terminerai par dire qu'immédiatement après, s'il plaît à Dieu, je lancerai notre tournée nationale qui, s'il plaît à Dieu, se déroulera sur deux ans. Parce que nous ferons le tour du Sénégal, commune par commune, département par département. Nous prendrons le temps, à chaque étape, de communier avec ce formidable peuple sénégalais qui nous attend partout qui demandent qu'à qu nous voir et nous étalerons cette tournée sur deux ans. Il nous est revenu de plusieurs sources bien informées que ces nervis que vous voyez là sont préparés également pour saboter les tournées, comme ça a été d'ailleurs le cas hier euh, avec euh, euh Bougan Gaydani. Nous attendons le moment venu, on avisera, mais comme je l'ai dit durant cette conférence de presse, nous ne sommes pas là pour nous livrer à des assassins ou des nervis pour euh, nous laisser faire. Mais le peuple souverain appréciera. Nous n'attaquerons personne, mais nous répresserons, nous répresserons vigoureusement lorsqu'on sera attaqué. Je vous remercie de votre aimable attention. Ça va. ñëw na nga sama kër. waaw <laughs> loolu moo baax ci xale yi xale yi.